sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu dakiran wa shakiran abad waj'al kalaami rashida wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bil mustafa xayra sham assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh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 te fonk sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ak Sëriñ Tuubaa ni mu doone woon nitu sunna euh, tax na ànd ak may yàlla yi ko sun borom may yëpp ñi nga xam ne ni dañ daan jëfandikoo ak daanukat wala ñi nga xam ne daan jëfandikoo ak xërërër ndax xër sax xëy baax na waaye xërërër moo baaxut ak ñi nga xam ne ni xëy dañ daan àgg ci di mel ni ñuy jëfandikoo ak daanukat fekk dañoo bëgg a laytoo sëriñ bi yooyu yëpp eh, daana dégager responsabilité am ci ku ko bëgg a layoo ci lu dul jaamu yàlla ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ba tax na ñun ñëpp ñu war di bàyyi xel ci kàddu yooyu te nag jekk ay waaram ak jetaayam noonu la daan deme mu ñu demee ci téereb sëriñ Alxaaji Mbàkke boobu def ciy nettali ne am na ko mas a ci sëriñ Tuubaa ne ko man de Mbàkke damaa ñàkk ndey. ñàkk baay ñàkk nijaay ñëw ci bëgg nga nekk sama ndey di sama baay di sama nijaay sëriñ bi ne ko ana loo wax mu daal di cay jaaraat mu ne ko wool fere yi ñu daal woo ña nekkoon yëpp mu ne ko waxaatal la nga waxoon mu ne ko man di mbakke ñàkk ndey ñàkk ñàkk nijaay moo tax ma ne naa ñëw ci bëgg nga nekk sama ndey di sama baay di sama nijaay mu ne ko déglul ma wax la boo demee nga def ragal yàlla mooy sa ndey def jaamu yàlla mooy sa baay def liggéey muy sa nijaay waaye yooyu jëru fee tooge na ko boo demee nga def yooyu muy sa ndey ak sa baay ak sa nijaay muy ragal yàlla ak jaamu yàlla ak liggéey am na it eh, ñu mas a ñëw ci moom ne ko ñun di Mbàkke dañu laa bëgg ba talatuñoo jaamu yàlla maanaam bëgg giñ la bëgg tax na jaamu yàlla sax mënuñu ko Sëriñ Tuubaa ne leen bu ngeen demee ngeen boole ci bàyyi lekk ak naan ndax gannaaw da ngeen maa bëgg ba tëru leen a jaamu yàlla kon te jaamu yàlla moo gën a diis te gën a rëy lekk ak naan bu ngeen demee ngeen boole ci bàyyi lekk ak bàyyi naan ba ñu demee mënuñu ko caa boole ñu xam ne kon loolu du aw lay sëriñ mi la leen dem leen ngeen jaamu ji yàlla am na it commencé ñëw ci moom ne ko Mbàkke de dama laa bëgg wóolu la ba nga xam ne ni boo ne moon tàbbil ci teen bi léegi ma tàbbi ca sëriñ bi ne ko déglul mu dégloo mu ne ko duma ma la wax nga tàbbi ci teen bi ndax sa sa tàbbi ci teen bi amalu ma njariñ amalu la njariñ li fi nekk kay mooy dafa am loo bëgg ci yàlla te amoo pas pas pas jëf ko demal jaamoo ji yàlla nit lam bëgg ci yàlla jaamu ko moo ko koy may lam ragal ca yàlla wattandiku ay teram moo ko cay musal daana waxit moom Sëriñ Tuubaa euh, sama gaal gii de ci sunna si yonent bi rek la mën a daw gaal gii ma leen dugal ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la mën a daw kon nag lu waay mën a Euh, naatalal wala mu rëyalal la ko ci sëriñ lu dul jaamu yàlla ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ne loola seytaane la waaye du sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek ku la ku lay ñoom la te it ku leen yey la ndax ba fi nekkee de mas naa woote ne leen kaay leen ma damaa bëgg a lay bala ñoo àgg penc mu mag ma daal ne maa ngi leen di xamal ne day yàggadiwuma fi gàttuma tànk wax naa ngeen dégg def naa ngeen gis bind na itam bàyyi fi te it loolu lu wér la ba tax na sëriñ Bay Jaxate daana wax ne sëriñ bu wax na bind na def na nu gis te digle na lii moo ko war wàcc na mosula mooy mosula fo waxam a gën waxi ku ne jëfam a gën jëfi ku ne waayam a gën waaye ku ne waayam ja dëgg nag du fo foo gis ku neeti waayama muy foo ko nekk fa poma bul gëm ne kooka waayama waayam ja dëgg dootu fo foo gis ku neeti waayama muy foo ko mooy xumaagama foo gis ku neeti waayama weddil ndegam gis nga mu fo xaalis bu yàggee am xumaag wurus bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaaga fi ruus aka fo bamba wurusu sell la waayam dërëm bu sotti la te ku amub rax yeru la ab raxa bon day taxa fo xànjar lu dar dar ci wurus asal bu ko tëgg di gis xam ne dafay niru wurus ne du wurus wurus du fo wurus lu bokku ca xaalis lu weexul bokku ca bàmba lu baaxul bokku ca nañ bàyyi fo jullit du fo xikma rek day tënk yaa koy tënki ngir jariñoo ci rajo waaw day sekki moo tax mën naa wuy la te wuyu balaa jariñ nga toj ko jot ca buy ba buy baa lay jariñ kon wuyu ñëw na gaa ñi kaay leen toj ko bañ mën a jot ci buy bi ñëpp tiim ko ñii màcc ñii no tëri ñii njambaan ko ko féete woo naa nit na seggal ko in uridu illa al islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa